di sant suñuy wéjur sant Cheikh Ibrahima Fall Lampal Mouridina la lumière suñu sëriñ suñu lépp sant Cheikh Abdou Sakkoor Mbodj sama sëriñ ba nga xamante ne bii bis bi ba ma koy tàmbali moom joxoon ndigal maa ngi sant sama wéjur Aja Aja Seynabou mi ci suuf nga xam ne soxna Seynabou Ndiaye yaay Cheikh seen maam moom mii lañ ko tuddee di sama baay bi alaaji mbedd mbaay mu mu muy xëppee àjjana ndax biñ tey suba wàcceel nañ leen fi ay kaamil mook sëñ Abdou Sakkoor Mbodj sama sëriñ dañ koy defee at mu jot wàcce leen ay kaamin ñaanal leen ay dog yàlla yërëm leen xaar leen àjjana lii nag li tax ñu def ko nii mooy seen baay bu baax ba sëñ Modou Aminta Fall laa dégg ñu ni da daan wax naan cant bu woroog damu des na ndax bis bii ban koy tàmbali bu ma jóomul kafteeru kafe laa ci defoon ak ay mbiskit ba yàgg ma ciy defi beñe loolu moo waral daanaka ñu koy defee nii sax ngir kat ñu xam ne ñun moom Cheikh Ibrahima Fall mi ñu bëgg gëm ko topp ko ànd ak moom mu jaral ñu lu ne fu ñu jëm ku ñu ku ñu gis xam ne ñun ñi ay taalibe Cheikh Ibrahima la Cheikh Ibrahima mi nu mi nu dañoo bëgg ñu xam ne Cheikh Ibrahima mi ñu àndal moom kenn du ànd ak moom di jël ndaare kenn du ànd moom di jël ndaare saa su nekk dañuy set di sol lu set di di lu set di di di kii ndax yaakaar naa ne bu ma juumul bis bi ba ma koy ba ma koy tàmbali am na ci ay jamono yoo xam ni euh, bu ma juumul maa ngi koy nettali sànq ci bëccëg am na at moo xamante ni bii euh, rajo yi ma luye woon ñu doon ko euh, si karee am na borom voiture boo xamante ni bii eh, transporté daf ma ko cee topp topp topp topp ba ba mënatuma topp mu far ma ko may te tey mboolem lu ma ci def sama oto laay taal dem jëli ko ñëw indi ko ndax dégg nga fa ma waxee loolu kon Cheikh Ibrahima mi ngi ñuy yokk bu baax te ku santul gore woo te man xaw ma kan waaye sant naa Cheikh Ibrahima Fall Lamp bu baax ak sëtam yu tedd yi nga xam ne yàlla daf maa booleeg ñoom jàppewun ma dara nag képp ku may seetaan na xam ne sëti Cheikh yi di ñëw ci man ak sëti sëñ Modou Mbodj yee toog ak Baye Fall yi takk seen der toggi woon ndogu ba ñëw sonn waroon a dem dem dem dallu ji te defuñu ko topp ànde wu man dara de loolu sëriñ bi dong ndax xame wuñ ma fenn fu du ci sëriñ bi am déet ci sëriñ bi lan ma jàppe seen maam ji lan ma jàppe sama mbokki Baye Fall yi seen seen sëriñ bi ñoom itam lan bi ma bokk ak ñoom lan ma jàppe waa kër sëñ Modou Mbodjee seen maam ji lan ma jàppe ndax kenn du ci rabi jàmbur ku nekk say rab rek ngay daanu te ñun suñuy rab mooy si Ibrahima Fall Lambaal Mouridina ak sama mbokki taalibe yi ak sama mbokki bopp yi ak sama mbokki deret yi nga xam saa bu ma leen bu ma leen ko yëgalee ñoom ñëpp ñu ñëw ñu ñëw euh, macha allah ndaxte bu ma bu ma bu fi tegoon ñaari kees si biscuit sax te gisuma ko ko ko ko xewloo maay mujj mere sama bopp. kon ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di dellu ñaanal suñu wajur wi ci kër gi nga xam ni ajatu sëy ni bu saamu lépp moom la man moom la ku dul juum amul ndaxte dañuy faral di wax naan góor lu mu tàmbali mu àgg da ko ànd ak jigéen ju nangu. Mhm. ndax nekk naag sama soxna ci kër gi. Mhm. bi ma maa soode mais. Mhm. du ma ko ñaar du ma ko sant dama koy ñaanal yàlla yàlla bu mu juum ndax dañoo nekk wax dëgg yàlla am ma bari yëngu di yëngu ci aar wàllum aar bari ay kajab kajab naqar dara lool waaye lépp mu ngi mi ngi góor góorlu di ko di muñ di wax dëgg yàlla am ci man cofeel lool du dëgg ndax man dinaa gëdde dinaa buudee dinaa danaa tànge ci àll bu ñëw sotti ci kër gi ndax ku ne xam na ni damaa tàng waaye wax dëgg yàlla am lu ci man di xew rek ak bëgg ak bëgg lu ma neex wax dëgg yàlla am lépp loo xamante ni bii xool na luy saaral bis bi fan yëpp nalawul ci lool rek la ne. barke maam ndax te nag ku santul gore woo. Mhm. te sama bàyyi daan wax ab dof du gërëm dool du gërëm ku ragal du gërëm te ragal ku la mere day tere wax dëgg boobaag léegi bi. lu ko lu ko taaral rek ak lu ko rafetal rek ak lu ko réussir rek ci la nekk kon nag Fall sant naa leen sant seen maam ju baax a baax di gën a toroxlu di gën a di gën a wax ni kër Cheikh Fall jaam jaamaat laa fi ndax taalib bi sëñ Modou Mbodj laa te sëñ Modou Mbodj jaamub Cheikh Fall la ma ñu jaamub sëñ Modou Mbodj kon kër Cheikh Fall jaam jaamaat laa fi maa ngi ñaan bu dee am naa dara ci Cheikh Fall wala mos naa ko xëyal mel xëy mum nangu yàlla ngeen yàgg yàlla ngeen yokk yàlla ngeen dund te yàlla bu cat man ci yéen dara ak sama mbokki Baye Fall yi nga xam ne ñoo ma gënal ñëpp ndax nag ku nekk ka nga bokkal eh, ak bëgg moo de sa mbokk man kon yéen laa bokkal yéen laa bokkal Cheikh Rafal yéenay samay bokk jàpp leen yéen a ma gënal ñëpp jiitalu ma kenn teg leen sama mbokki Baye Fall yi ndax da ngeen a sonn jóge ndog yee ñëw di sant sama sama xarit yi fi fi fi teew Arona Sidi Diakhaté maa leen ziar di wax ni seen site internet bi nga xam chaque année ngeen ñëw indi ko seen propre engagement ak na dund ba nekk ci télé yi bokk ci télé yi gën a mag ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ bi nee na mi ngi nuyu mboole mbokk yi ñu fi bokk nekkal ñëpp waaye nee na moom de mi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba sant maam Cheikh Ibrahima Fall nee na ginnaaw nuyoo boobu it mi ngi nuyu mbokk yëpp nee na mi ngi nuyu daam mi nga xam ni nee na daam kat moom moo waral jataay bii nee na moom de day sof rek ci kadduy sëriñ daam rek lay sof mooy baatub cant ndax nee na alxuraan dafa wax ñett yoo xam ni nee daanaka kat li ëpp ci nit ñi seenu xam daf cay xaw a des lool nag nee na kon ñett yooyu yëpp ci biir nit ñi rek nag lay nekk. nee na ndax mbooleem yooyu sunu borom bi mu ko waxee tuddut la neen doomu aadama rek la tudd nee na muy ñoo xam ni mën nañoo am jëmmi doomu aadama waaye ak xamkat day xaw a des lool ci ñoom nee na am ñoo xam ni mën nañoo amu xam waaye duñ jëriñoo seen xam-xam boobee nee na mu am ñoo xam ni lu mu mën a doon ci àdduna ak cant duñ ko def mukk nee na loolu nag lenn ci nit ñi lay doon nee na waaye sunu borom jaam bu ne war ngay sant nee na waxuma la sax ci sa bindu bopp bi nga xam ne moom na la bind nga xam ne daf laa tànn mu wax ni lépp lu mu bind doomu aadama moo ko ci gënal nee na loola dong jaroon na ñit ku nekk di def ak sant jëmale ko sa bopp nee na mu rawatina nag bi ñu suturaalee boole ñu ci njabootug Seydina Muhammad nee na loolu rek da doy na sëkk ak cant nee na rawatina mu boole waatnu ci kër Serigne Touba jël sunu buntu jaare ko ci Cheikh Ibrahima Fall nee na kon de loolu rek doy na ak cant. kon nag bu ñu bu ñu bu ñu yàlla boolee bëgg-bëgg bi nga xam te mooy Serigne Touba Cheikh Ibra. nee na kon nag bu ñu yàlla boolee bëgg-bëgg bi nga xam si mooy Serigne Touba Cheikh Ibra. mooy bokk gi nga xam si mooy gën a kon nañ ko jàpp te teye ko nee na daam nag mu di ko wax ni nee na lii kat ab soññee rek la war a doon ndax nit ñi ak jot bari wuñ ko de jamono it xat na waaye nag li nga def ci ñoom di ko séq ak ñoom loolu moo waral lii nee na kon loo ci doon def na nga koy yokkaat bu baax beneen bi nag mooy. ñu xam ne ñun ay Baye Fall rek lan sunu yaakaar it du génn Cheikh Ibrahima Fall nee loolu nag bu ñu ko doonee war nañoo xool sunu doxin xool sunu awin xool sunu waxin xool it sunu melokaan ci nit ñi nee na li koy sabab mooy lépp dafa maase bàyyi ñu xel lépp dafa maase bàyyi ñu xel nee na ku ñëpp bàyyi xel nag looy dox. war nga ko teg ci lu leer. te nee na feeg ñu ngi jaar ci yoon wi leen sëñ bi jaarale. kenn du leen jëm ci dara. te yoon woowa nag moo yoonu ngërëm. te nee na daam kat jàpp naa ni am ngërëm kat moo ko may lii. te nit nag sàkkuwut lu ëpp ngërëm. nee na ñu ngi nuyu bu baax it suñ kilifa gii yegg si léegi di sëriñ Moustapha moom sëñ Modou Aminta. moom sëñ Cheikh sëñ Cheikh jëmb moom sëñ Modou Aminta wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf